su la neexee nga dalee ci bopp leetar bi di jàng pari baat ba ca cat leetar bi muy leetar bu am njëriñ bu la neexee itam nga dalee ca baat bu mujj ba di arrière par baat ba ci bopp leetar bi mu doxal leetar bu am njëriñ loolu moo tax ñu ko akkan ci xara xara mooy doxee gannaaw xam nga dafa xaw a ni li ci maqam bi ñu doon jàng ci gannaaw mm. waaye loolu moom pari xaraf la woon kii na pari baat ngay jël mu ne haddasa waxtaan na alhaarisu haaris mm-hmm. ibnu hammam mm-hmm. qaal mu ne lahadatu gende ko woon naa mm-hmm. fii baadi matarihil bayni ci leen ni sànni waayu tàggalooy wa matamihil ayni ak yëkkate ko waayu gis yi fidiyatan ay dara muy ay ndaw alayhim ñooñ nekk na ci ñoom si ma di jàmm mandargam xel ci biir li may ak de dañ kumpa dama ko ay ndaw yoo xam ne soo leen gisee da nga gis ñoom màndargaam lool wati laa wati nu joomi dujaa ak taarab bi diwi lëndëm te itam ñu taaru lañ wowum te ñoom fi mu marat ñu ngi ci weerante mustaddatil hugo bu daa ji taddi wuku mubaratin ak gaarlante mooy jogante mustasadil uloo bu daal di jéggi dayoo ci làmb li werante bu xumb nag ak jongante bu tab nag ci lañ nekk woom te ñoom fi mu maraat ñu ngi ci werante mustadatil hubo bu daal di tat jiwuku mu baratin ak gaarlante mustasadil uloo bu daal di jéggi dayoo ci làmb li faxasani gësëm ma li xasdihim ci jublu leen xawal muhadarati soppu muhadara muhadara mooy def jataay waxtaane xam-xam léegi conférence léegi conférence léegi la nga yi di wax ko bu ñu xam-xam nekk ba neex ma wacce laaw janal munadarati ak neex lu kotti teel daggi am bi mbiram waxtaanee xam daal neex gi neex tamay dama fa yem falamma saxtu ba ma yéegee biratihim ci seen mbooloo wantazamtu tema nasu fii simtihim ci seen rang ba ma demee ba ca ñoom bokk ca ñoom xaaloo wax nañ ma ne dañ ma ne anta ndax yow man yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne yub laa dana ñu nattu fil hay ci xare bi wayul xiit te muy sànni dal woo baagam fiddi lay ci baagi ñu ne ma est ce que da ngaa bokk ci ci jongante bi ba loolu nga bëgg a ah, anta ndax yow emi eh, man yaa ngi bokk ñi nga xam ne ñu laa danañu jaay ci xare bi wayul xii te muy sànni dalwahoo baagam fi di ci baag ndax ñooñ nga bokk xaar si bu xultu ma leen déedéet ban li fi nekk anaman min nazaratil harbi maa ngi bokk way seetaani xare bi nazara mu dajee de seetaan ci lañ ko daan jëfandikoo waaye léegi jumtukaay bi ñoo seetee mooy lunette ci lañ ko jëfandikoo te tawurul luxa bii la rek mbiru nit ñi ni muy amee màgg dafay feeñ ci seen i wax yi moo tax mu ni sa yaram wala muy tukki lañ ko daan jëfandikoo waaye léegi arrêtul pour kafen de safar te lañ ko jëfandikoo tukkeekaay bi lañ ko jëfandikoo muy oto waaw mbooloo mu am ci tukki lañ ko daan wax waaye léegi nag tukkeekaay bi moom lañ ko jëfandikoo dégg fa qultu ko bal li nekk ana min nadarati al harbi maa ngi bokk way seetaane xare rek ci dama danga bokk si ci ji pour bëre ma daa ji kay seetaane ci dàq man kay damay seetaan rek laa min abnaa'i taani bokk doomi jami wa ak dóor man kay bokk damay seetaan rek fa adraboo ñu du an hijaaji wali daki an teg ñu daal kon man nga toog bi ñu waxee ma ci coow li man maa ne boppam waa Fatou ñu bëri waxtaan fi taaji ji jamante biir wax ji na xam na ay ay aaji ox jiya léeg-léeg ñuy day caxtaan wa kaanate nekkoon na fii bu boate alxatim ci dingirem seen géew bi wa iglili ruqatim ak dayrab seen setti seen mbooloo mi daayira biñ def nekk na ci goo xam ne xat baratu na ko alhu moomu jàqare yi wala waxatu te xett ko ba tey wala nga ne dégg nga xat na ko alhu moomu jàqare yi wala waxatu te xett ko mooy wowal jëmmam ak moomu ngelaw yu tàng yi xataa xaada ba mujj alxala di gën a xoor min xalamin ci xalima waa xaala te gën a ràndat min jëlamin ci diso am na genn góor gu nekk ci seen biir nag góor gi daal dafa jeex takk xam naa yàgg naa jeexle ci àddina yaram bi dafa wow kom soo ko gisee gën a daw xalimba waaye yaram bi moo gën a katan diso dafa dëgër kal illaa annahu ndare nag moom kaana nekk na mu yubdi de feeñal alxajaaba kéemaan isaa jaaba bu tontoo waaye suñ laajee daal bu tontoo laaj bi mu ngeen moom góor googu wayu si te muy fàtteloo saabaan saabaan waaye kullama abaan bés bu birale saa su waxee ba mu leer daal fasaatul lisaani bi ngay nemmeeku ci moom da nga xaw a fàtte saabaan waaye boo jibtu héemu loos ma bi maa ci li nga xam ne ootiyee joxeef na ko min al isaabati ci jubal wa tabrisi ak raw ala tilka al isaaba ci moom waxee sawaab ak ñim toogal ne nim leen rawee wax jib tu himu loo bi maa ci li xam ne boo tee joxeef na ko min al isaabati ci jubal wa tabrisi ak raw ala tilka al isaaba ci moom leen bool wa maa taala mu yax dahu di lu ñuy jame wayus mm. mi mm. mm. te muy boom fi kulli mar man ci wépp sànni waay moom daal lépp luñ caxe rek ci saa mu tom ilaan xalaat ba féex aljihan bu tumkaar yi mooy kenn ku nekk lam dencoon ne moom la muy wax wax na ko jaxan ko mooy gise googu bërëb bii dafa fettam bala buy fettal bu koy jël par benn mooy doclaat bi nga denc sa kàpp yi wana bi da te jeex ak su alu laaj wax jawaab ak tontu ki doon laaj li mu bëggoon laaj yëpp na ko ak ki doon laaj itam tontu na lépp lu ñu laaj falamma raa ba mu gisee infaada saw bi fëggu nit ñi bi mu gisee nit ñi nit ñi mel ni dañoo jeexal nag kenn amatul loo wax wa tiraaruhum ak seen ak nopp seen loru wa tiraaruhum ak seen loru ila sawmi jëm ci noppi sawmu li muy firi ci waxi arab mooy nopp inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya bi loolu amee su gisee ñëpp ne tara xarata gaaral na mu bil mutaaraxati ci dàggeante mutaaraxa mooy ngay wax ni dana déglu soo mu ngi dem nga déglu ko mu wax li mu bëgg a wax mooy loolu wata dana mu diisu fil fataxati ci tàmbali mu ne am na lu loolu fa xaaloo gaañi wax la woo ñaal ne ko habba saa baax loolu kay moom gannaaw ñu ngi toog kenn waxu bu ñu waxee rek xam-xam ngeen loolu ak baax bu ma dana kan mooy warlu naa ñaan bi saa jiri mu ne ma fa mu ne atarifuna ndax yeneen ngi xam risalatan leetar bu xam ne arduha suufam samaawa mooy asamaanam mooy awaluha axirun laha wa axiruha awwalun laha wa subuha suba masawa mooy ngoon bidayatuha nihayatun laha wa nihayatuha bidayatun laha mutajarra bes na ko ala min wali ci ñaari wuku ñaari rabbukaay wata jallat feeñ na mu fii law ne ni ci ñaari melo wa sallat te mu julli ila jihatayni jëm ci ñaari wàll wa badat te mu feeñ saa ta wateeni te borom ñaari ana in basaxat bu penke min masriqiha ci penku wayam fana yi kana doy diraw na xiya taaram boo ko dalee ci bopp bi jàng ko ba ca calla danga ko fekk muy risaala bu fes dal ak yi kama wa in talaat bu penke min maxribiha ci soo wayam soo ko dalee ci baat bu mujj ba ngara arrière ba ci baat bu njëkk bi fa yàlla ajabi àllaw kéemaana kon ni jàng lool ba beneen yoon incha allah amin بداية لها إن فسخت من مطلعها من من مشرقها فناهيك برونقها وإن طلعت من مغربها فيا لعجبها قال حارث ne fekk am na xaw ma daanaka nit ñi nag rumo sànneef na leen bi suma si ci nopp mu daal bi mu waxee lii nit ñi dañoo mel ni ñoolu aw xaqat wala xëy na alayhim ci ñoom kalimatul irsaad baatu jëlent wala daf di loo xam ne xam nañ ni ñoom mënuñ jeete dara ci nag da wax xam nga dañoo xam ne lii moom nag koy jëwal ñu nag maa na ba sa tuddul minhum ci ñoom insaanun kenn ñoom ba ñoom de kenn ci ñoom ngawul benn baat wala faaxa tuddul li aadi ñaar kenn ci ñoom mm. li saan wenn la lam mi yëngatul tu yëngatul kenn waxu daal ñim ne tam fa hiina raahum ba mu leen gisee mm. bukk man ñu de wayulu kalaan am mel ni juri kër yi mm. wasuma tante de way nopp yi kalas naa mel ni xirin bi bu waxee toog du yàgg nag te ñëpp ne taras kenn waxu dara ni kuy wax ak xirin mel ni kuy wax ak daaw bëyam wala maaraaw bu mu leen man ñu ne way lu naa mel ni juri kër yi wasu moo napp kalaas naa mel ni xërëm xaala wax na lahum ñaa leen dafa leen ne xan ajaltukum digal naa leen ajalan ente ci digal ñett affaire bi mën naa joxe dale fii ak ñeenti weer pour ngeen génn waan xëy yoon naa lakum ñaa leen te walal muddati buumi diir kon siis moom yaatu na xelaat ba génne fi dara xañ su ma topp xaawu naa ci fii la mañ maa sommi dajawaayu mbooloo mi su ah, su ko defee ñu bokk daje xaar di waxtaane ñu daje bu ma ko bi farle tey taxawu ngay seet dem kenn ku war a defu leen ko fa in sama xat bu tabee xawaatirukum seen xelaat ma tax naa ñu tàgg na su ngeen ko defee ñu kañ la wayin salaanat bu géeyee sinaa dukkum seeni dañu béy xadax naa ñu koy ci su leen teye ñu defal leen léegi man mën naa joxe dalee diirab ñett ñeenti weer ci misaal ñu joxante rendez-vous yi dajee fi kenn ku nekk wane lam defee ah su ngeen ko am ndam li ñu kañ leen def fa qaalu gaañi wax la woo ñaal gaañ lépp wallaahi giñ nañ ci yàlla maala naa ñeexalu ñu mat ba hul firi waay fi lu jëtti aadal bahri ci la gëm gi la géej wala ñeexalu ñu mat ba hul wëru waay fi saa yi la ñu ne ko ñun lii mënuñ ci xóotu mënuñ ci tam mënuñ ci dara mënuñ ci xóotu mënuñ ci tam maala naa ñeexalu ñu mat ba hul firi waay fi mm-hmm. lu jëtti aadal bahri la gëm gi la géej wala ñaalu ñu itam masrahun wóoruwaay ci saa yu ci tasa ba. waaye noppalal ab kaaranaat bu ñuy xelaat naan kër di ci coono te soo ñu dem rek ñeenti weer nekk de ko rek ba sonn ci de soxna sa kër waxal nit na nga neexale alantiyata may gi bi naq di ci teew xam nañ ne heure bu ko defalee mu amal ñu njëriñ waaye boo ko gaawee nag dafa yokk ñaan gi ci ñu wattanit naa nga jàpp ñu te jàpp ñu ixwaanan ñu di bokk ñoo xam ne yesi boona danañu buur ida wasabta boo buuri wusoo wuyu si boona te danañu fay sawaab mooy lésimam matasa matasa sa sootoo sa ko fay te itam nga xam bu baax ne lu la saf rek ñun moo ñu saf loo nekk rek ñun ca lañ nekk jàpp ñu ñun say bokk lañ ñoo xam ne sa lépp sax na leen rek boo bëggee ñun dara dañ la ko def taxit naa jàpp ñu ixwaanan ñu di bokk ñoo xam ne yësi boo na danañu buur daawa sëpp boo buuree mm. ko yësi boo na danañu fayee matat sa waxtu boo fayee ko faataaka musanaa gal saahatan aga waxtu bi nga waxee dafa sa gaab diig su ma xaal topp mu ne samaan dana ma déggal dégg la kum ñaal leen wataatan dana leen topp waaw hmm. ah, kon li ngeen naa ko nangul naa leen ko parce que loolu na ngeen sàkkoo fite hmm. min ni jëlee ci man hmm. kon jël leen seeni xalima ngeen gis li may wax wan xuloo te ngeen toxal an nii jëlee man ngeen doxalee al insaan saniatul ihsaan baleetal bi àll al insaanu nit saniatul ihsaan mooy jëfi rafetal nit ñi boo baaxee ci ñoom rek moom moo tax rafetal li ma defal nit mooy may ko nit ahsin ila nnaasi tastaabit qulubahum fatalama waraful jamiili mm. defet lu rafet mm. fi'lun nasbi mm. mooy jëfi sang ak jàng lim laaj mooy tàmbali lu baax topp ko mu yokk bañ ko yàq loolu la déggoon inna siyaadata fitnatayni fala takun yabtal masayixi fihima bisahidi kon nga nekk sang ñaar yëf lay xamee yàlla na ko leen dëddu xam lil masaqati waxti maali xatal wara ah nangoo sonn nangoo muñal nit ñi lay sal musammiru lil ola kal qaay ba mu àgg rek dégg wasimatul hurri jikkoy gor saxiratul hamli mooy daxañ cant ak ak gore la koy taxa sotti mm. mooy de def lu lay faggul ngërëmal nit ñi jaar ak nit ñi ñoo bëri gërëm la mm. mu ne si gor noonu la war a mel si ah, gor dafa war a wattande bu bëri ñu jaar ak fu ñaaw waaw mm. ah. wasimatul hurri jikkoy gor saxiratul hamdi mooy denc cant daxañ cant ab gor da war a góorgóorlu ba am cant ak nit mooy dafa war a wattande bu bëri ñu muy jaar ak fu ñaaw di mm-hmm. jaar ak nit ñi bu rafet gënal ko lu bëri mm-hmm. waaw xam na de mm-hmm. wattande bu bëri ñuy jaar am na ñaar ñaar yoo xam ne buy jaar yi wakkat bu sugri fàggu cant istismaaru saadati mooy sàkku meññatam te nit de yëngatu lu koy jural ñi sant mm. mu ngi wutal boppam meññatam mm. pexe rek waaw ah, li nga amee sa cant ci mm. sa jàmm nekk ci la karami attareetu tiraanga tabasirul birri mooy njël benal sàlle xar kanam fi nga yaakaaree ne kii kërim la dajeeg ne gis mu rëcceeku may la cël may mandarga la ci ne kii karim la kon rëy yi xal bisri inna alxurra himmatuhu sahifatun wa alayha albisru anwar salon bu baax a baax waaye bu ne yaa ngi dikk la rek yaa ngi dikk la rek yow xamoo ko xamoo ku la soxla xamoo ku la soxla xamoo ku la muñal xamoo ku la mënta muñal yaa ngi dikk la rek non benn njëriñ seet bu baax a baax na ko bu baax am na koo xam ne man koo dikkale ba jeex su xam sax ne dikkale yoonam newul yoonam newul am na gis na bu baax a baax gis na ko bu baax man bokkul ci suma aada dafa mara dara dara dara gën neex loolu bokkul ci suma aada loolu moom bokkul ci suma mbir yàlla bindewu ma noonu kenn ko dee am ci man man comme defu ma dara defu ma dara loolu loolu moom moom yàlla bindewu ma ko. waaw yàlla bindewu man dewu ma la dara dara dara. te loolu waaw waaw nga di ko dikkale nii rek bee rek neex. loolu moom man daal comme dewu ma la dara dewu ma la dara. waaw loolu daal la xam nga loolu waaw. wastimaalul mudaaraati. jëfandikoo masla. yooyu ji bu dana mu waral. almusaafaatu sellalante xarit almudaara mooy da ngay jëflanteeg nit xam mm. loo xam ne sa la mm. nga dal di ko rafetal bàyyi ko ndig mm. rek nga def ci àndoo loolu mooy mudaara seetlu bu baax yaa ngi ànd ak nit lu ngeen séq yaa ko moom de ci moom la war a baxoo waaye na yow li nga doon kuy rafetal tax doy nangoo jël li nga moom lépp léeg-léeg rek mu am loo baax léeg-léeg rek mu am loo bàyyi léeg-léeg rek mu am loo bàyyi mu ne danay waral koo ànd ak gindoo moom bu baax a baax ndax nit ñi dañoo bëgg bu baax ci ñoom loolu moo tax te daal dina loolu la laaj su fekkee loo am da nga ko jël lépp man naa am da nga jot ci li nga moom waaye li nga moom rek ngay am tel bu baax waaw moo tax bokk na ci karam déedéet li nga moom nga ne nangu dara rocc selum bu baax baax mu ne loolu danay waral ko àndan ngeen gindoo de maa dumta hayyan fa daari naasa kullahu mu ne fekk yaa ngi dund delanteeg nit ñi ci mu daarante gi de fa innama anta fii daaril mudaarati mu ne addina bii nga nekk keroog loolu la de dumta hayyan fa daari nnaasa kullahum fa innama anta fi daari lmudaarati man yadri daara mu ne ku xam doxinu àddina du sàggane mu daarante wa man lam yadri ku ko xamul nag sawfa yura amma qalilin nadiman linnadamat réccu rek ànd ak nit bëri yoo ko mën a muñal bañ na doo muñ xam mm. yoo xam ne mënoon nga koo rotal bañ di ko ko mm. te du la wàññi dara mm. mënoo ja muñ dara dara dara yàgg-yàgg rëccu rek waaw yàgg-yàgg rëccu rek wakkat bu sugri fàggu cant istismaaru saadati mooy sàkku meññetam texe waxoon waatul karami adresu tiraga tabasirul bisi mooy jël benn mbégte jël benn sàlle xarkanam wastimaalul mudaaraati jëfandikoo mudaarante yoojibu day waral almusafaata sellalante xarit waaqudul mahabbati fas cofeel yaqtadi dana mu sàkku an nusa laye ji nit gannaaw soppante nga wax ne moo leen boole danga danga war a moom ci de ko laye biir muy laye biir li koy lor nga de ko ko dawale rek te mu mucc je gënal la lu ne li koy jëriñ nga de ko ko bijjal rek te mu am ko gënal la lu ne ak soppante la lay selon bu baax a baax su fekkee koy waxi dëgg doo ko reexali gannaaw xaritoo bi moom loolu la laaj loolu la laaj tey rek damay jàng ci sira halabiya dama ci yër muy wax suri yëpp yonent sari yëpp yonent bi njëkk yónni Hamzatu bnu Abdul Muttalib moom la jël boole ko fanweeri nit fasal leen drapeau bu weex ku ñuy wax Abu Marsadin ci weeru koor boobu gàddaay gi ñoom ñaari weer la amaale bu mm. ñu dogoon ñaar ñi gannaaw kum ci mën a doon mu ngi def ak lu taxaalu pour benn mm-hmm. bëgg a xeex mm-hmm. mooy ne moom daal si góor rek la bëgg a doon mm-hmm. bëgg dafa sante kenn jàll te ñoom ñaar ñi mënu cee xeex kenn kon dëggu bëgg moom nañ ko rus affaire bi ñu wax waa am sa mooy jiite ñu leen bi ñu wax leen di mooy leen di wax rafet gis-gis la mu ne kooku ku rafet gis-gis la waaw waaw seetlu bu baax a baax doonte noonu la doon dajee entre yu bëri mënoon na jaaxam itam noonu la ko nawee mu ne ku rafet gis-gis la noonu moo tax nit ginnaaw fasante ngeen léeg-léeg rek moom bu wax dëgg jotee waxal lii dëgg rek moo gën wasitqul hadisi dëggug waxtaan xilyatul lisan mooy takkayal làmmiñ wa fasahatul mantiqi fasaha ak tudd nag sirrul albab mooy jéebal ak xel yi kon ñu jàng loolu mu ne nit ñi li leen a yéem mooy wax joo fasaha waaye làmmiñ la koy taaral mooy wax dëgg waaw mu ne nit ñi wax joo fasaha moo leen a ko waaye wax dëgg muy biir nag waaw mooy indi njëriñ mooy jañ loolu baax da ko fi fiitu bànneexu bakkan afatun nufoosi mooy gàkk ak bakkan mu ne bakkan lu ko dal rek ittibaahul hawa ci la ko dalee yàqu bu ko mën a dal rek hawa moo ko naxee mbaalam bi ba jël ko waaye bu ittibaahul hawa xamul rek mën naa am dana dem ca sellam la wa malalul xalaayiqi yokkat ak bindeef yi seynul xalaayiqi mooy ñaaw ak jikko yi te lu mu baax a baax li ñu soo bëggee ñu gaaw a génn ci yow te ànd ak ñoom jikko yu ñaaw rek waaw te lu mu baax a baax ak nit ñi mënuñu wéyeg ne ci jikko yu ñaaw affaire ñàkk teggin affaire ñàkk kersa nu la neex def yooyu borom ko koo boole dëkk de saf nit ñi déedéet selon bu baax a baax mm. waaw suñ ko ca bàyyee ba mu foog ne ñu ngi ko ca bàyyi mm. ndég mbiri du sax moo tax wa malalu xalaayiq yokkat ak bindéef yi mm. soynul xalaayiq mooy ñaaw ak jikko yi eh, nit ñi ku leen di ànd ak ñoom jikko yu ñaaw dañuy gaaw ci sa mbir wa soo tamaxee ñaaw ak xemem yu bàyyinu dana mu bañanteer al waran sàmm xam hmm. ne bëggee gu ñaaw boo xam ne di góobu rek xam fi nga war a xem hmm. ak looy mën a bëgg ak looy mën hmm. war a gëm ne yàlla mooy kii séddale lim la sédd tey du la ci tere jot lim la sédd tey di du la ko taxaam suba say bëgg-bëgg du la puus ci loo xam ne day kajamal sa der wala day ka jëmal sa diina selon bu baax a baax waaw wasoo tamaye wasoo tamaye ñaaw ak xemem ñaaw nooy bëggee bay fàtte ne yàlla de séddale loolu yu bàyyi nu dana mu bañanteer alwaran sàmm déggoo de sàmm walti sàmmu xasaamati tëqoo takku mooy nangoo góorgóorlu te sa yëngatu da tegee ci yoon simaamu mm. salaamati mooy noskal mucc nit su bëggee de mucc ci réccu mm. dafay bañ di nenal jamono mm. te itam li mooy def muy seet yoonu muy mu def ko ca teg loolu mooy sax bu ëllëg dikkee da jëriñ ba du réccu wal ci saamul simaamu salaamati mooy nuska ak mucc watatallubul masaali bi sàkku ayibi jàmbur yi sarrul maayibi moo xiis ci ayib li ñu daal koo xam ne loo si këlee rek ak lu mën a xew tane woo kenn yow waaw li daal fekk yow sikkam rek nga ak lu mën a xew tane boobu yow seetlu bu baax a ki nga xam ne sikkal la rek lay xalaat ko ak lu a xew tanewul gannaaw sikkal la rek yi rek bëgg a xam seetlu bu baax a sama borom lim la xamal te sant la suturaal ko kon ko war a suturaal lim suturaal boo koy def dañ gumpa la taltamis min masaawi naasi ma sa teroo nit ñi seen ñaaw ñaaw yi ñuy humb humbal boobu la jéem a sàngi ko yahtikallahu sitran am masawika nga xam bu baax ne yaa looy sàng te sama borom mi njaboote ñëpp nag am fu mu lay am loo xam na loola boo dëkkee nag de sàngi jaan ñoom daana sàngi waaw te mu ci nekk rek waaw nga xam baax ne yaa ngi looy sàng ku nekk na xam loo laatal tamit min masaawin naasi ma sasaru nit ñi seen ñaaw ñaaw yi ñuy humbu humbal ba ko de jéem wuñ ñi de ko jéem a sàngi fa yaatika allahu sitran min masaawika ndax yaa ngi looy sàngi yu de wa tasallubul masaalimi sàkku ayibi jàmbur yi sorul maa yi mooy fi ayib wa tatabbu al hasaraati topp fakkatali yur hidu dafay tarxeesal al muwaddaati ay cofeel nit su fekkee da ngeen a jëflante te doo ko dee ci lenn lépp rek fa nga koy topp ak ci lenn doo jëlale lenn dafa waral mbëggeelam ci yow wàññeeku waaw tawate yu bëri yu mel noonu góor yu bëri yëpp dafay waral mbëggeel ko wàññeeku waaw te lu bu a baax waaw te bëggeel nga am place ci fokk rek naaw yomb wata te bu ma laa saraate topp fakkatal yi rëcc rëcc bu ne rek nga topp doo bàyyi dara loolu yow xeetu dafay tarxees dafay tarxeesal al mu waddaate ay cofeel wa xuluusu niyati sell ak xéene xulaasatul atiyati mooy sell ak may nit bu la xéenee loo baax deselatul gannaaw yéene ju rafet la yow su waxee ndég yow lu lay jëriñ lay dàkk ja wax ja su defee ndég yow lu lay jëriñ rek lay lay dàkk di jëf ja su dara da ko jox pour mu amal la njëriñ rek moo tax jox la ko loolu moo tax nit daal li nga xam ne moo gën a wóor bu la bu la ko la dara mooy yéene ju rafet waaye fekk yéeneegul la lu baax rek dara nga war a gul wa xuloosu niyati sell ak yéene xulasatul asiyati mooy sell ak may wataani atun nawaali ndokkul ak may samanu sual mooy njëg ak laaj nit bu amee suuf de la da nga ko war a béjalee may ba mu wax dëgg mu si tan dëgg wataani atu suali ndokkul ak wataani atu boo xam ne am na su dikk laaj la danga war a kontaan loo jox wa takalluful kula bi toggoo coono yi yu sahilu dafay yombal alxalaba kuutal nit su ñemee hen li mu war a sonne mu di ci sonn dafa war a lum ñàkk ci lu ñor rek son borom kuutalal ko wa tayaqqunul maonati wóoru ndimbal yusanni dana mu yombal al maonata coono yan bu mu mën doon bu tegee ci sa kaw soo si wóoloo ne yàlla mën na la jaa dimbale dootu diisati bu yow wa tayaqqunul maonati wóoru ndimbal yusanni dafay yombal al maonata coono lu mel ni liggéeyal gan ak yooyu gis ni su ko wóoree ne yàlla nga koy dimbale la muy xam ne ci nit du wa fadlu sadri ngënee la sang mooy njiit taatu sadri mooy yaatu dëgg borom bu la defee nga di njiit am ñoo boot da nga war a xattan lu bëri war a xajoo lu soo xajoo ñu bëri xattanoo lu bëri doo mën njiit doo mën boot wa fadlu sadri ngëneel a sang muy njiit sansu sadri mooy yatub dëng wasinatu roaati taarab way sàmm yi te muy buur yi maqatu soaati mooy jippiram mbay ji su fekkee da nga méngoo aw nit jiite leen te bëgg jaay rafet ngay toxal ay waxi yàq de la indi dañu bële déglu de déglu de boo leen déggalee ñu yàqal la hmm. ak ah, wasina turroaati taarab way sàmm yi hmm. maqatu soaati mooy jiit way ràmbaaj yi wa jazaul madaihi fay ak tagg yi hmm. basul manaihi mooy tasaare may yi wa mahrul wasaili xaqi tinu yi tasfiul masaili mooy tinu doo ci laj dikk bëtinu nit ci yow loolu mooy nga nangu ci loolu wa majlabatul xawaayati fi jiwaay beew istixraaqul xawaayati lamal dayoo la mbir lu ne rek da nga koy topp rek ba mu jeex takk dugg ci lu ñor rek du mën soo meree da topp meram ba mu jeex takk soo kontaanee da topp kontaan nga ba mu jeex takk bànneex dikkee nga topp mm. nam loolu ci sa bakkan ba mu jeex tàkk man daal nag lépp de tëddee mm. na war a tëddee ah lu ne rek fañ war a xemale buñ ci àggee dañ ko war a xemale noonu la demee wa tajawusul haddi jéggi dayoo mm. yukkillu day lottuloo alhadda ñëw ka te donc bu baax romb fi nga war a yem day yàq ngóora nit day sàmmante li ko man mën a may sàmmante bi ko aada tollale mooy tax nguuram du yàqu wa taaddil adabi jàkk jàkkati teggiin yu bit dana mu yàq alquraba ay jaamu jëf yu baax lu mu mën doon su fekkee yarade gu dugg ja da ko yàq nit bu bañee jëfam di yàqu day am yàq yarade gu lu mu dugg yàqu ak wa taaddil adabi jàkkati teggiin yóbbitu dafa yàq alxuraan ba ay jëf yu baax watanaabil huquqi fàtte fàtte lu xàq yi yunsiwu dana musot alxuquqa mooy xuquq mooy xam lu naqadi nit dëkkane nit su fekkee da diggaale li mu war a nga dëkk dew ko xañ dafay waral doo daboote lu la neex moom itam gannaaw ku niteel waaw ah, nit bu ngeen àndee la nga a sàmm nga dëkk da ko sàggane waa dafay waral nag lu la neex moom it du ko dabooti watanaasi lu xooti fàtte fàtte lu xàq yi yow dana mu sos alon koo xam mooy wataasi riye bi moyu sikki yi yar fama dana mu yëkkati aruta ba daraja yi moom mooy nag yenn yu wërët yi wartifaawul axtaar yëkkateeku daraja yi bixtihaamil axtaar nekk nañ ci bëttëg mbëmbëre yi gën a ñemee walanteeru noonu la gën a mën a xamee kowe ci lu ko jar watanawuhul aqdaar yëkkateeku daraja yi mu waataatil aqdaar nekk nañ ci dëppoog dogal nit itam lim gën a mën a manoore mooy li nga xam ne dogalu yàlla eh, seetu na ko wa saraful amal tedd nga ak jëf yi fi taqsiril amal nekk na ci gàttal mébét yi wa italatul fikrati guddal xelaat tanqiwul hikmati mooy sell ak ñaw nit bu bindoo ñaw dafay baax mu fonk settantal mooy tax du suroo wara surriyaasati bopp jiite taxaddubu siyaasati mooy sellak siyaasa mat njiit mu ngi li ci gën a am solo mooy rafet li ngay jiite wa maa la jaajëte faal ak nuutul xaal la teefi sànni al al alaajatu haajo mbir soo ko soo topp ko te delloo gannaaw mën nga caa am bunt waaye ndal aw jaal sa njàqare yi ka tafaadal lay gën lante ak jaalu kon ñi jàng loolu man damay mu ngi sonn